Info2S, la chaîne du peuple. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de vous liker et surtout de vous partager. Merci. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nekk nag ab xibaar bu tiis boo xam ne daal dina wàcc léegi uh, ci uh, réewum Sénégal mu nekk nag uh, déddu àdduna ki nga xam ne nag moom mooy Mama Diaga ñu gën koo xam nag ci Kiné Diouf di waajur bu jigéen ci ki nga xam ne moom mooy Wally Seck nekkoon nag soxna ci Thione Ballago Seck moom nag moo daal di déddu àdduna léegi nii gannaaw nag bu ñu xamlee ne ab feebar bu ko teraloon na ñu daal di koy bu fi nga xam ne nag moom mooy euh, ca réew mu France ngir rek mu dem euh, faju ji waaye nag euh, foofu la daal di noppaliko moom Mama Diaga ñu gën koo xam nag ci Kiné Diouf moom nag moom moo daal di faatu. moom nag Mama Diaga ñu gënoon koo xamee nag ci jege gi nga xam ne jege woon na ko njabootam waaye itam jege woon bërëm këram ñu xam leen nag foofe ca France la wàcc liggéey. mu nekk nag ab naqar boo xam ne nag yàggoon na ci xolam sax ndax lu yàggul képp la ñu gis ne doomam boobee di mi sekk moom itamit ci la wàccoon liggéey moom tamit yàggul dara rek mu daal di wàcc liggéey mu nekk nag loo xam ne lu métti la ci sama kàddu nag ñu koy jaale askanu Sénégal yëpp rawatina nag ki nga xam ne moom mooy Waly Seck ak njabootam ñu ko koy jaale moom Mama Kiné sekk nag ñu koy ñaanal yàlla rek yal na ko yàlla.